ñeenteelu xaaj bi ci juróom benn xaaj yi ñeenteelu xaaj bi ci juróom xaaj yi gayi téere bu sell bi lañu jàng nañu loolu ci téere bi yonent yi bind nañu ko ci kàttanul xelum yàlla taalibe yeesu dañuy jàng tey topp kàddug yàlla taalibe yéesu dañuy ñaan yàlla ngir mu xamal leen coobareem ci seen dund yàlla mooy seen njiit duñu dem ci ab sëriñ wala ay jàngu ngir xam coobare yàlla ci seen dund dañuy woor tey ñaan yàlla ngir xam coobareem dañuy ñaan yàlla ci seen xol maanaam dañuy waxtaan ak yàlla ci seen xol mbind mu sell mi nee na dee leen bég te sax ci ñaan yàlla di ko gërëm ci lépp ndaxte loolu mooy coobarek yàlla ci yéen ci seen bokk ci kirist yeesu aaya fukk ba aaya fukk ak xam nañu ne yàlla mu ngi fépp ci àddina kon fu ñu jublu ñaan yàlla nangu ko ajuwul ñuy jublu genn wet ngir julli ci yàlla dañuy sarax miskin yi dimbali seeni dëkkandoo waaye defuñu ko ngir mucc ndaxte yàlla musal na leen ba noppi ci daritu yeesu taalibe yéesu dañuy dajaloo sunu ko mënee ngir màggal yàlla ak di dimbalante ci seen biir dañuy jàngu kàddug yàlla di ko màggal ak a ñaan sàkku coobare yàlla bu ay taalibe di dajaloo ngir màggal yàlla dees na leen wooye ab jàngu jàngu du ab tabax waaye mooy mbooloom ñi gëm léegi ma laaj leen juróom lu tax ñuy woowee taalibe yeesu yi wala gaay téere bu sell bi taalibe yeesu dafay jàng téere bu sel bi te dundam dafay dëppoo ak téere bu sel bi téere bu sell bi mooy kàddu yàlla te mësul soppiku juróom ñett lan war di def war nay ñaan woor saraxe bokk ci ndaje yi ngir màggal yàlla ak di may fit ñeneen yi